ñi ngi lay wax bismillah ahlan wa sahlan ñi ngi lay ndokkeel ñi ngi lay sant ci initiative bii nga xam ne c'est la première fois à ma connaissance depuis l'indépendance jusqu'à nos jours un ministre jël ko vis-à-vis des sëriñ daara jóg ànd ak sa staff ànd ak sa équipe ne damay dajeeg sëriñ daara yi waxtaan ak ñoom déglu leen xam lan mooy seeni soxla lan lañ yaakaar ne buñ ko defee soxla yooyee faju ba li nga xam ne neexul benn sénégalais di am ci suñu capital ci ak dëkk yu mag yi loolu mën a saafarawu loolu depuis indépendance man maa ngi koy doog a gis te duma ma gone nag kon ñi ngi lay ñaanal yal na la yàlla defal ndam yow ak son excellence El Hadj Malick Sall ma Macky Sall mi nga xam ne moo la doyloo am ci yaakaar dénk la poste bu jafe bii ku ne xam na ne daara nga xam ne am na lopp mille ci réew mi am nu daan doxe am nu ko état gisee am nu mu gisee état te loolu ñu donne ko ci colonialiste sii ba léegi bar barrière boobu dox seen diggante kenn ku ne ragal sa moroom président Macky Sall dañoo ànd ak yow ñi ànd ak yow ak ñi lay jàppale ngeen bëgg a dajji barrière bi wane sénégalais amul Sénégal amul ñaari citoyen benn la am kon nañu waxtaan ak sëriñ daara yi déglu leen ñu wax seeni soxla lañ ca man lépp ñu def la ca des umma bi yëpp xeet wi yëpp jàpp ci parce que mbirum daara phénomène national la boo xam ne état képp mënu koo régler waaye ñépp ci war a jàpp ndax daara moomeelu xeet wi la mais moo julli wi la kon duñ ko yenn état suppi ko ci ñu sant la liggéey bu metti waaye yàlla na ko yàlla woyofalal mu laaj li président wax ne la demal nga waxtaan ak sëriñ daara yépp diisoog ñoom ba li ñu yàlla defal nu ci ndam mu wuuteeg lañ fi daan yëkkati yëkkati nañ ko benn wala ñaari yoon defe naa bu moo juumul waaye demut ndax appliquer loi moom baax na waaye na fekk loi ba balle ca ñeñu appliquer seen kaw mais loi bu ñu togge toggee ca kaw ba mu yor ñu xëpp leen ko boo ne ko bëgg appliquer doo du yomb kon nii ngeen def muy bunt bi mën naa ne su boole sëriñ daara ak état bi ñu ànd liggéeyal réew mi bu amee bu doon néeg yaa indi caabi ji parce que lii mooy caabi ji toogoo ñoom déglu leen nawloo leen ndax war def yaay dafa dafa léebu ne koo xeeb mu yab la la doon ndox ci jamono yu dafa mel ne dañoo xeeb sëriñ daara yi dañ leen a gannaawal sëriñ daara yi gis seen bopp ne toog di xaar rek waaye madame la ministre yal na la yàlla may ndam ci lii ngay def yal na ci yàlla may président ndam kon ñu ngi lay di la sargal waaye di sakku ci yow nga jàtt jottali su nuyoo ci le président Macky Sall mi nga xam ne suñu ànd ak moom datewul tey ba muy xëccoo réew mi nekk opposition booba la fédération ma àndoon ak moom ak sëriñ daara yépp ndax yaakaar naa ne ku mel ne Ahmed Tidiane Talla su ma sañoon tax mu ñëw ci kaw nekk ambassadeur itinérant nekk APR moom xel waxu ko waaye sëriñ daara yépp àndoon ak moom waaye moom it matal ko lëre ndax bi mu yégee ba léegi wax dëgg yàlla lépp lu muy def diisoo na ci ak sëriñ daara yi fu bët xonqe mu woo leen recevoir di waxtaan ak ñoom jàmm dellu kon ne ko noo koy sant noo koy gërëm noo koy ñaanal yàlla yokk ko ay ndam ci liggéey bi muy liggéey réew ni sant nag gouvernement bi yëpp waaye rawatina sunu ministre tutelle Mamadou Talla nga xam ne tey moo yore éducation nationale te xam ngeen ne daara yi ñu ngi ko rattaché ci ministère de l' éducation nationale mu am inspection des daara da nga ñëw représentant ñëw na léegi noo ngi lay madame le ministre jotte suñu ngërëm ci sa sa collègue Mamadou Tawa mu yore éducation nationale te nu bokk foofu waaye noonu sant itam nag di nuyu di gërëm xalifa généraux ci Sénégal yëpp ci seen taxawaay nun day ay takk ndeer dong la fajar gaa ngi ñëw tey yaa ko indi yaa ko président Macky Sall pour bëgg nag jox daara gëddam jox waa daara seen gëdd yàlla leen ci yàlla jàpp na waaye madame le ministre bu nu sante président ci taxawaayam ci jàppale gi mu jàppale association islamique yépp la laa waaye rawatina fédération moom ci biir nag ak ci bitti duñ mën a ñàkk sant sunu partenaires yi société bu ñuy wax Sénico Alaaji Ablaye Dia jiite ko mu ànd ak sëriñ daara yi di organiser concours bi ngay gis ci koor gi ba xale yi ci génn bu ñu demee bitim réew di jël ay premier sur le plan mondial ak i deuxième ak i troisième te Sénégal bi réew mu ndaw réew arabe yi nekk fi ñeneen nekk fi waaye bu ñu dem Sénégal nekk ci kanam loolu concours boobu ñu organiser depuis juróomi at moo indi kon kooku mën na ko ñàkk sant ci taxawaayam jàppale gu jàppale président ci lu ci daara yi ren maanaam bi muy génne asaka vingt millions la génnee jox ko fédération bi neen maa leen ko jox ndey daara yi dix millions génnee deux cent di ceeb jox leen ak yeneen yu bari yoo xam ne mënu ma ko tudd fii kon madame la ministre loolu dana lay sant nga jot na ko président moo ñi mel ne moom mën naa jee tudd Moustapha Ndiaye doomi ndeyam fu Ablaye Diadé mu dem ki yeeyu ndimbal ki yeewu ko su boobaa yaakaar naa jàppale ci la gën a yomb daaw ba noo ngi topp di ko daw xamuñu fu mu ak lu ko boleke noo ngi lay demandé nga wax président nañ ko ba assemblée sëriñ daal yaa ngi ñoo ko wax ñoom ñëpp ñu ngi nii ñoo ko wax waxuma bu loolu weesoo eh, dañoo gis ne ñun dañu doon négliger lu tax mbirum pétrole ba mu fi xewee bu fi feeñee woote nañ concertation bu yaatu président woote ko kenn boolewul kenn woowul sëriñ daara yi woote nañ concertation nationale ba président tudd fa daara kenn duddul sëriñ daara kenn woowu leen président day daje ak syndicat yi homme d'affaires yi parti politique yi ñuy wu ci lu gën a jubale nit ñi leen gën a àndale kenn mu sow sëriñ daara ne leen ñu waxtaan te ci leen bokk nag genn mbaam gàtt waaye ci jur gi la bokk <coughs> kon dañoo bëgg sëriñ daara yi jox leen seen gëdd ku fi jóge ci discipline boo mën a dem bitim réew même boo indiwul trophée bi ay personnalité ci état bi dina ñëw teeru la aéroport teral la ànd ak population bi concours am na duwaay 92 jël premier sur 92 pays pays arabes yëpp ngi ci biir mu tawaa ba mu wàcc nun sëriñ daal rekk noo ko teeru ak ministère de l'éducation nationale am na ñu fa jóge jigéen ñi jël troisième jël quatrième sëriñ daara moo leen gàtt am na xale bu jigéen bu dem euh, Dubai moo gën a metti concours soixante douze pays keroog ba Sénégal jëlee deuxième Bahreïn jël premier ambassadeur moo téléphone ministre affaires étrangères nekk xale bi na gouvernement bi yëpp mobilise teeru ko parce que jox na Sénégal lam lu rëy ñoo ko teeru concours bi nga xam ne tey sur le plan mondial pays arabe yaa ngi ne du di ak naa dañuy jàng si ko Sénégal te cinq la amagul mu njëe final bi ci ci koor gi gouvernement bépp ñoo war a mobiliser wu ñëw parce que mbirum nation bi la ñëpp ko bokk lu national dëgg la gouvernement ma nga fay yónnee ma nga fay dimbali président def na ko mais dañu bëgg ñu yokk lool te gën koo jox gëdd euh, kon madame la ministre li ñuy wax dañ koy wax suñu doomi ndey di ko wax koo xam noo bokk bëgg-bëgg lim bëgg la président bëgg loolu lañ bëgg waaye ñi président di ni ñooy ñooy manqué ñooy manqué la leen président tan président lu wax dane lu may lu may lu baax bu ñu ma ko waxee ma santaane ko ne nañ ko def waaye ndax daañu ko def mais yow def nga li ma sant yow yow demal nga waxtaanu sëriñ daara yi nga wooma ma ñëw nga ne ma président wutuma dara imposé wu dara président moo ne naa toog wax ak yéen déglu leen ngeen wax li ngeen bëgg yëpp sëriñ daara bi fédération daal tey waxuma ci turu fédération turu sëriñ daara Sénégal yëpp laay wax la ngeen soxla mooy ay jafe ngeen wax ko ñu xam ñu seen veer duñ ca mën def nga ko ni lu président euh, ba tey euh, ñi nga xam ne lépp ak ñàkk waxtaan ak ñoom waaye lépp yéene yi benn la surtout président ni mu ci réew mi ak lim ci lim lim ko jaral bu fekkoon daal lu mu digle ñu def ko kon kon kenn waxatu ko waaye président fii la digle ne fédération nañ ko jox oto bu bees tàq ndax xam naa seen i coono ñu jox na oto am fukki at ak xam nga président digle wu kenn bu ko mu ne xoolal mu ne ah lii rek lañ may lañ may man président ban ban instant jox oto ba am fukki lu mu digle gaa yi def samaan wala bokk at ak li cëpp amuñu benn accès ci benn ministère bul sa ministère yow wala ministre éducation nationale ñeneen kuñ ci woo kuñ ci demandé audience doon doon wuy ministre de la santé soxla nañ ko trop ak yeneen ministères yi mais mënu amuñu fa accès bëgg na vraiment ñu yombal sëriñ daara yi ñu xam ne ci réew mi lañ bokk am réew bu fekkee sa sa say maam ñoo gas ñoo ñoo gor tool ya gas teen ya jàngal nit ña kenn mënoo caa fegg kenn mun na caa feggal ku la ci bëgg a feggal problème indi waaye it nii nga tàmbalee madame le ministre yàlla na yàlla jàppale yàlla na yàgg président dëgëral leen sëriñ daara yéen itam ñu ànd ñëpp xam ne am réew day dox ci ay texte day dox ci ay loi day dox yoon réew mi day day signé ay convention yoo xam ne moomul boppam il faut mu appliquer ko nu itam lu xam ne jamono day dox am na lu jamono laajoon bu njëkk jamono laajatu ko nu nangoo nag ni nga xam ne man sama mbaa sama baay bu daan tukki day dox ak tànk fa man oto laay war mu dëkk ci nag mu dëkk ci étage wala terrasse nan xam ne lan loolu lépp soppi nag mooy soppi lépp bu fekkee principe ba la ñuy def principe ba soppikoo rek li jamono indi dañ ko war a jël ndax dañuy wax ne bu gëleemu jamono yësee ne la yéegal nga ne ko du ma yéeg gëleem gi dem yoonam jaani jaani jaani jamono ñëw màtt la waaw kon nan xam ne il faut dëpp ak jamono tekkiwul ne da ngaa bàyyi la sa maam ak sa bàyyi nekk